voilà mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Liberté 6 euh, bi ñu fi ñëwee nag euh, ils sont très organisés ci côté bi nga xam ni noonu la ñuy jëlee jànq yi euh, kenn si ñoom si góor ñi di Cheikh Ahmadou Bamba Diakhaté Cheikh Ahmadou Bamba euh, ñu leen di jaalee suñu pa Pa Samake ñun yëguñu woon ni dafa làqu ñu koy ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana voilà mu nekkoon pa boo xam ne ji doon na liggéey liggéey bu am solo ci wàllu jànq yi euh, yéen nag yàlla teg leen fi ngeen nekk fi tey bu ngeen doon wax ni ngeen organisé woo ak ni nga xam ni noonu ngeen i liggéey jànq yi ak ñu nga xam ne ñooy employeurs yi mën ngeen ñu si indil ay leer. waaw onze billahi mina sheytaani rajim di wax inna lillahi wa inna rajiun ndax euh, bakkan ba ñam ñun di nga ñam tee tey bu ñu ñëwee fii ba lépp yaatu yàlla ak bakkanu Pa Samake ba fi nekkoon moo tax ba lii yëpp yaatu ak ki nga xam ne moo nekk muy sunu yaay yaay Michel. Euh, bari na ay jafekonte yi ñuy jafante en tant que ci patron yi ak si jànq yi mais li si ëpp si jànq yi la li si ëpp si jànq yi la man je suis un ancien militaire benn jour laa wàcc. jógee caserne ñëw romb gis benn waaye di maltraité fi benn jànq di ko dóor dóor yu métti ma daa ñëw toog leen laaj leen lu xew fi ñu ne fi dañ fi wute liggéey mais waa ji dafa ñëwoon bëgg sàkku xale bi xale bi bañ kenn ñemewul jël disposition laaj ka la man maa ñëw xeex loolu ma ne que nag comme loolu ma fi am désormais man dès maintenant je viens ici encadrer xale yi ñuy wut liggéey ma leen di wuteel liggéey si anam yu leer nañ waaw. Eh, ci loolu euh, yow bi fi ñëwee euh, léegi. Euh, est-ce que souvent ñi ngeen xam ne ñoom ngeen di gérer maanaam ñi ngeen di coiffer entre guillemets quoi mm-hmm. ndax bu ñuy ñëw di ngeen leen teg ci ay euh, dispositions yu leer ci ñi nga xam ne ñooy seen i employeur euh, ak ñi nga xam ne tamit euh, ñoom ngeen di seqal liggéey bi. xam nga man amaa man damay wax ama non personnel y a beaucoup de yu fi nekk tey jii tey koo ne woon télé ngi nii ñoom ñëpp ñu daw seen responsabilité je pèse bien mes mots waaye bu problème amee koo ne courtier la maa ngi nii jànq bu nu joxe. yaa a certains yoo xam ne ñoo ngi fi tey jànq ba nu joxe bu amee problème ñoom ñu daw seen responsable mais man même bu ma joxewul jànq ma dégg cas bi ni mu demee man je m'engage man maay dem régler problème parce que sama saaga nga ne j'ai mes dama leen répertorier du lundi au samedi ku ma joxe le même jour je prends note adresse bi jour bi ma ko joxe on va faire deux photocopies de sa pièce damay garder benn photocopie bi jox la patron benn la patronne il m'a rendre sa pièce ma inscrire sama agenda les dimanches bu ma defulee dara ma taal sama moto tey bu ma demee Almadi beneen dimanche ma dem Ngor beneen dimanche ma dem Mamel beneen dimanche ma dem Wakaam xool nan na ñuy dëkk parce que làmmiñ ak bañ ñoo dëkk dañuy marché di ànd patron yi am nañu ay doom yu baax jàq yi tamit dañu jóge ci kër di liggéey bu baax mais ce que je mooy je lance un appel que tout le monde ñi nga xam ne mooy patron yeeg jànq yi ku nekk da nga jóge ci kër di na ñoo xam ne yenn jànq yoo xam ne ñoo ngi toog tey bu nee la nga ne am na yenn jànq yoo xam ne tey buñ la waxee lu ñuy liggéey nga nga nga nga nga nga bëgg xaj si dugg si parce que dem jaayi seen bopp di ko dundal seen yaay rafetul mais jànq yi dañu tekk seen sër six heures yi mën leen jóg di wut liggéey bàyyi si kër ndey bàyyi kër bàyyi sedd bi ñëw toog fii sept heures yi ma def fi nga leen di fekk man bu marché neexee man maay jënd añ jox leen jëndal leen ndox bu paas amee bu ma amee paas ma may leen pour lan encourager leen ñu leen liggéey mais nag je piège bien mes mots am na ñoo xam ne ñoo ngi yàq suñu liggéey fii jël ay xale jigéen di leen yóbbu si ay cabine de massage dëgg yaa man si pas d'accord am na fi te man j'allais déployer à la police déployer à la gendarmerie xeex naa fi ay nit ndax loolu da ngay jël xale ni que léegi am naa place soixante mille xale bi liggéey la gis mais bu demee ba ko wax lay xam ne la koy yóbbu du loolu bu ñëwee bu ko waxee fi nga dëkk li mu wax du dëgg mais attends nous sommes en quel pays. Euh, ñoom bu ñu demee bu ñu gisee lu ñu xamul dañuy ñëw dénoncer leen. dañuy ñëw dénoncer leen te ñoo ngi fi man je peux citer son je peux citer seen ñoo ngi fii parce que nag Liberté 6 yàqu na yàqu boo xam ne ku nekk kër gu nekk am na ñu fa yàqu am na ñu fa baax sa doom yi nga jur am na ku baax am na ku bon mais man dama ma part personnelle ku bëgg liggéey ma teg la si cadre liggéey 6 heures boo fi ñëw doo fa fekk benn jànq man sama côté 6 heures ñëpp laay dàq ne leen dem leen ñibbi ba suba am na ñu jógee Kër Massar ci Tivaouane Peulh Koundoune ñëpp di ñëw pour wut liggéey mais koo ñëw ñu ne la dama si diw parce que man li may def dama ko teg te am na foo leer si seen ancien militaire bëgguma dugg si ay détails semaine passée am na benn jànq boo xam ne dafa ñëw fii nii doomu meer bi moo ko bëggoon siif ma ne ko ndax loolu wóor na la mu ni ma wóor na ma man ma taal sama moto yu ñu dem mais bu ñu demee dama ko teg ci yoon effectivement booy bi mu tëddee guddi day rocc caabi bi booy bi bu tëddee mu bëgg ko sa subooy bi ni ko yooyu indi ma fi xale bi ku jigéen ku góor ki dóor ko si mais dama ko porté plainte après yaa ji ñëw na ma ne ko aw ma may arrangé yoon na def liggéeyam parce que tamit ku jógee ci kër ci kër lay dellu sàmm ko ba ku nekk am nga doom bu baax am nga sa doom mais doo làq sa doom bu bon génne si ku doomu jaamur c'est ça. ci loolu dañ ciy profité sax si li nga wax nii en tant que ancien militaire nga xam ni mm, dund nga li nga xam ni mooy yoon ak li yoon digleeg li mu tere euh, ku xam militaire xam seen rigueur ak seen engagement. Mm. yow yàlla def nga ñëw nekk ci milieu bu mel nii nga xam ni milieu bu complexe la bu jafee gérer comme ni nga ko waxee tey euh, est-ce que ci wàllu yoon laata ngay dugg ci liggéey bi nii voie juridiquement parlant comme ci yoon wàllu yoon def nga ay formalité au niveau de la police ou bien de la gendarmerie wala fu mu mënti doon ñu jox la kayit yoo xam ne yow di nga mën a engagé wu à fond ci liggéey bi. loolu ci parce que instant bi ma duggal kii dafa tombé woon ak élection mille après ñu changé ministère de l' intérieur mais j'ai commencé affaire faire les démarches au niveau de la mairie au niveau de sama numéro am commissariat jëppal am nañ ko sama numéro commissariat police su Grand Yoff am na ko gendarmerie am na ko. par exemple bu cas problème amee yaa des yoo xam ni dañuy def cas de vol mais bu ñu waxee immédiatement dañ naan liberté 6 la ñu jógee ñoom il m'appelle tout de suite man j'ai allé voir la fille pour identifier est-ce que la fii la fii la jógee wala déet damay toog ak moom jàpp nañ fi nit ñu woo ma bi toog ma toog xam nga kii ma ne ko xaw ma ko ñu laaj ko xaw ma ko ñu ni ma demal parce que fii dafa nekk dafa populaire boo xam ne y a des gens xam dañu defee ailleurs ni liberté 6 la ñu jógee fekk jógee ñu liberté 6. mooy plaque tournante parce que dafa nekk c'est vague parce que par exemple tey fii bu la fi nawet fekkee sa yaram day daw dañuy daw di dugg si suufu balkon yi ñu leen di dàq ce que nous déplorons ñu wutal ñu benn kii boo xam ne lu mu bon bon man je ferai le maximum bu nga xam ne dama ni woon tey jii tey bu nu amoon benn moyen bu baax boo xam ne man je préfère chaque jour ma jox jànq muy togg añ ñuy jaay xale jigéen ñi plat 300 ku amul liggéey añ 300 yooyu ñu dajale ko bu subaa ñu duggee ko. am koo xam ne da leen di toggal ñii am na ñoo xam ne jàng nañu mais bu nu demee ba si biir jàng-jàng ba amatuñu les moyens il faut que ñu retourne à zéro pour a mën a wut am tuuti lu am bu la neexoon mën nañ dem jaay seen bopp defuñu ko mais seen jànku liberté si si elles sont braves am na ay maire yoo xam ne ñoo ngi fi toog mooy maire ya mag yi dañu ñëw wut fóot par exemple yow supposons yow tey sa yëre kilim nga bëgg ku la ko fóotal nga ñëw ñu fóotal sa yëre passé bu nu paree nga fay la ñu dem loolu la ñuy wax si gi fay dafa am ñoo xam ne y a des jeunes yoo xam ne dañuy def chaque 15 jours elles descendent deux fois dans le mois am ñoo xam ni chaque semaine la ñuy wàcc am ñoo xam ne dañuy wàcc bés su nekk elles ont quatre ou cinq personnes ci benn nekk chaque 15 jours la ñuy dajaloo benn dimanche bi bu tombeek fenn mois ñu dajale yónnee xaalis kenn dem ñeneen delluwaat liggéeyi. loolu yaakaar naa ni euh, kon li nga fi wax yëpp maanaam demande d' organisation ngeen bëgg. demande d' nga xam ni euh, euh, autorités yi aussi jàppale leen. bu ngeen mënoon a am seen local bopp sax nga xam ni da ngeen koy structurer d'une façon euh, tele sorte que kenn du leen mën a maanaam euh, rax ba nga xam ni dañuy kii mais en dehors de ça est-ce que yow ñi nga xam ne ñoo ñëw fii si yow yow sa côté ku ñëw da nga koy enregistrer comme ni nga ko waxee sànq ba nga xam ni bu problème amee yow bu fekkee sa élément lay bokk automatiquement da nga koy xam. dama koy xam parce que tey boo ñëwee je te demande foo dëkk Pikine am naa des fois ay clients yu dëkk xam nga léegi après ñu dëkk Pikine day am ay clients yu dëkk Pikine nga mel leen en rapport ak Pikine ñu dëkk Kër Massar nga mel leen ay rapport ak Kër Massar mais avant muy dem la patronne da lay woo wax la li mu bëgg togg ak ménage nga laaj la fii ndax mun nga togg ak ménage léegi ñoom ñooy diggee ñu entre la patronne et la fille ñooy demandé seen prix c'est entre ñoom ñaar léegi avant la fille kii dem euh, avant la fille quelque part on va faire une de sa pièce on va faire des photocopies damay garder benn bi kii benn bi si la patronne d' accord na il ma téléphone ni ma xale bi d' accord na après ma envoyé son adresse et son numéro de téléphone man le lendemain bu tombé dimanche j'ai allé voir l' bi mu nekk ak est ce que elle est bien installée et ça parce que ñun ñu fi nekk bare noonu mais am na ñoo xam ne ñun déggoon nañu suñu biir xam nga am na ñoo xam ne ñun déggoon nañu suñu biir am na ñoo xam ne foo dem nag am na ñu baax am na ñu bon. ñee nag ñi bon ñi nag la ñuy jéem a écarté parce que dëgg bi am fii bëgguñu ko li fi nekk si turam mais nag man dama part personnel jaral na ma ma xeex dem ba police wala gendarmerie lu ma yoon may ma jël. ci loolu ko wax jànq di nga wax tamit côté booy ndax yow si booy yi am ñu ñoo siy gérer wala. am na ay booy yoo xam ne man du ma leen am yoo xam ne ñeme naa leen mais am na yenn booy yoo xam ne na booy yoo xam ne ñeme naa leen am na booy yoo xam ne ñemewu ma leen parce que booy yi si ëpp euh, dañuy liggéey premier mois. wane jàmbar ba patron bi am si ñoom confiance ñu dékaawe këru jàmbur man mii di waxee dal na ma ñaari yoon mais un an lan si teg ma jàpp leen fii laa leen jàpp waaw. parce que fii lañ jóge woon. fii la ñu jóge woon joxewu ma leen dama ñëw juste si maire bi wax ak moom mu ne ko xam naa ko ma ñëw ñu d' ma laaj photocopie carte d' jox man interprète laa si am mais booy bi elle a fait là deux mois bàyyi ba femme bi génn te mook femme bee ànd mu récupéré xaalis femme bi jël xaalis bi jox ko ko. mu dugg ci néeg bi maire bi tëj armoire bi ak kaal bi bàyyi ba maire génn mu dékaawee xaalis bi def ko si baraaye dem maire ñoo dama ne ko man dama ne loolu xaw ma kat ba ñëw dama ne fekk ngeen wax ba pare mais ndegam yàllaa ngee maye tôt ou tard naa ko jàpp un an lan si teg mu ñëwaat maa ko jàpp j'ai avertir la maman maman ñëw yëkkati cinquante mille may ma ne ko man soxlawu ma sa cinquante mille l' man sama liggéey laa bëgg ñu régler ko normal c' est ça Eh, ci loolu si euh, jamonoy paas Samake euh, ni mu amee ay jànq am ay booy euh, tamit doon nañ fi gis ay chauffeur ñoo xam ne ay chauffeur la ñuy doon tax. am na chauffeur. y a des gens yoo xam ne mi ngi sama sac je pense boo bëggee mën naa la ko présenter y a énorme y a énorme permis yoo xam ne mi ngi ak man ay gars yoo xam ne ce sont des anciens militaires ay soutien de famille yoo xam ne mënuñu toog. ñu photo seen copie carte d'identité ak seen photocopie permis ak seen numéro de a des yoo xam ne dañu ñëw ñun la ñu bëgg immédiatement damay génn sama agenda euh, woo leen ñu ñëw c'est la patronne ak booy bi ñooy waxaale li bëgg am na chauffeur yoo xam ne par école la ñuy dem am ñoo xam ne pour transporter les élèves ñoo xam ni c'est de besoin la ñuy nekkee waaw. ci loolu Olof Ndiaye wax mag du fecc si yàlla naa dee euh, souvent yéen ñi xam ne yéen intermédiaires yi dañuy wax jànq bu ngeen yóbbu am nga ay retombées yu ngeen ci am euh, financièrement par mois la wala par jour la wala. non par exemple si la fille elle est venue d'accord la patronne. bon la commission c'est cinq mille francs pour un mois ci biir un mois bi bu fekkee xale bi liggéeyam doy na ko mu continuer moom boo ko doy la patronne elle revient sur nous ñu ne koo janq bi ngeen ma joxoon kat lii ak lii ñu change yàlla jànq man dama part personne la xaw ma keneen man dama naan lañ de un de deux soit je te rembourse ton argent ou bien mu wuteel la beneen jànq man loolu la ma ñëpp a xamee si dëggu laay dox. commission bi patron bi moo koy fay wala wala jànq bi. non patron bi moom du joxe dara. jànq bi du joxe dara parce que amul lu mu joxe. parce que ñoom am na agence yoo xam ne dañ naan par exemple tey y a des yoo xam ne dañ ñëw tey boo jëlee jànq ni jànq laa bëgg soixante-dix mille laay fay agent yi dañuy ñëw fii te man toujours dama koy xeex agent yi dañuy ñëw fii daal di jël jànq fay ko quarante-cinq mille chaque mois ñoom ñooy dem kër patron bi récupérer xaalis bi ñëw fay jànq bi à quarante mille ou à quarante-cinq mille jël euh, kii loolu fu ko teg c'est pas bon ci loolu bon man euh, am na ñu ñuy dégg ñu ni am na jànq yoo xamante ni yi Euh, par exemple ñoom dañuy ñëw fexe ba nga am liggéey mais suñu amee liggéey da nga leen wax soo amee liggéey chaque fin de mois da may jox nangam wala di nga am loolu. non ñun duñu def loolu ku xam Bamba Jaxate si dëggu laay dox xaw ma lëndëm te du ma dox si lëndëm du laaj janq dara dama am na jànq yu ñëw sax ne ñun lan nañu joxe ñu ne ñun laajuñu kenn dara dañ leen di dimbale te yàlla tax dimbale bi mooy yenee liggéey li leen mën a garanti une source mooy maanu yem alalu jàmbur ba lu la may nga jël lu la may loo xamul laajteel éviter gardien yi si koñ bi maire yi jaay ndugg borom boutique yi ñoo yàq jànq si koñ da ngay ñëw si kër yi liggéey nga am fa sa jàmm nga génn maire bi ne demal ci boutique bi nga jëndal ma xorom borom boutique bi yàq la parce que am na contact ak euh, la patronne yow tu n'as rien compris yow kër permis ngay liggéey nga ne waaw mu ni yow yaay cinquième jànq du fay jànq kee tamit bu nekkee kon kon kele jël ay bagage am dem te maire bi dafa ko waxu ko léegi nag bu xale bi ñëwee bàyyil boppam par exemple yow nga liggéey ba si digg arrêté nga arrêté fenn mois nga dem jëli sa xaalis man loolu laa lay dégal avant ngay dem boo bàyyilee si diggu weer wi yow fenn mois ngay fayeeku mais quant à la patronne bu la nee arrêté le nombre de jours ya nga fa liggéey dala ko fay nga dem mu dem te balaa ngeen di dem da ngeen di ñëw fii ni ma kat man maa ne ka mu arrêté comme yaa ne ka comme yaa ne ka mu arrêté nous sommes en quel mois quel jour nga ne bon actuellement ku ne da ngay euh, sa briefing da ngay calculer sa yëpp léegi elle n'attaque jusqu'à la fin du mois le 5 ou le 6 la fille elle part jusqu'à le 6 bu ñëwee bu récupéré xaalisam booy ñëw na nag may woon ni ma kat tant de jours la fa liggéey ñu calculer tant de jours bi ñu fay ko mu def après elle va euh, récupérer sa pièce joxaat ko patron bi patron bi récupérer carte d'identité am joxaat ko ko c'est ça. ok léegi la ngay tàggatoo ci ak lan ngay ban message ngay lancé euh, ñi nga xam ni ñooy employé si biir kër yi ak surtout les autorités étatiques. bon li may lancé mooy j'aimerais bien que ñu jàppale xale yi liggéey am na senegal man bu ma neexoon ma dem dugg Espagne dem defi leneen mais dama ñëw fii si sénégalais et je suis fier d'être il faut que nag population bi ñu dimbale ni ñi y a bon bonnes yoo xam ne ñoo ngi fi mais nañu dimbale xale yi boo ñëwee suba teel fi fekk leen fi ni muy seddee ñuy kof ko fi liggéey mais mënoon nañu dem jaay seen bopp mais defuñu ko lu nu am def seen bopp ak seen ay waajur te di ñaan nag seen télé bi yal na si Serigne Fallou teg loxoom. ak euh, bépp mbindeef te di ñaan rek Sénégal na ñëpp nanu tàppe xol nanu tàppe xol yi nekk benn euh, Sénégal sunu Sénégal la ñu ñëpp a ko bokk bu ñëpp jàppee rek incha allah dina dem ci kanam te yal na yàlla def jàmm euh, yal na yàlla ubbi xéewal te xaalis ñëw xéewal gudd fan ak wér la